bokki Sénégal góor jigéen mag ndaw ñu ngi leen di nuyu gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi mu may ñu tey après ay weer ak at yoo xam ni askan wi yëpp mi ngi xeex pour que démocratie Sénégal du rester fa mu nekkoon ba ñu jëm ci élection ñu ciy dem nag sama xel dem pour ñaanal ñëpp ñi nga xam ni dañ ci ñàkk seen bakkan ñii dañ ci gaañu ñii ñu tëj leen kaso candidat yi nga xam ni dañ leen spolier dama bëgg rendre hommage aussi force de défense et de sécurité yokk ci ñi nga xam ni dañ yor seen i société seeni i usine seen i entreprise seen i kër te ñàkk ñu lu bari ñuy def élection yi ci contexte bu particulier mooy dañuy nar woor suñu mbokk jàngu bi ñu ngi ci seen carême suñu mbokk jullit yi ñu ngi door koor altine u talaata muy moment yoo xam ni dañuy delloo suñu bopp ci yàlla dafa jot nag parce que suñu réew lii ñu génn nga xam ni guléet la 3 février bi nga xam ne ñaanuñu yàlla ñu dundaat ko mukk dafa tax ba réew mi man Khalifa Ababacar Sall président de la République li nga xam ni mooy farlu mooy defaraat xol yi réconcilier nation bi defaraat état bi parce que suñu état moo nërmeelu ak réforme institutionnelle yi ci war yëpp mais relancer économie bi parce que crise sociale bi nga xam ni moom la ñuy dunda économie bu di moo ko def loolu nga xam ni nag mooy traamu suñu programme su fekkee campagne bi door na danaa décliner suñu programme bi nga xam ne ci nit la ci ndox la ci suuf la parce que réew mi su bëggee mënal boppam su bëggee moomal boppam il faut que mu dundal boppam dundal boppam nag mooy ñu développer activité yooyu yëpp may wax rek ni fii ñu toll réew mi dafa amoon nu mu nekke woon amoon na nu mu féete woon am na nuñ ko xoole woon ci Afrique ci monde bi ñu war a nag delloo si lépp pour que véritablement fii ñu jëm ñun ñëpp ñu booloo dem ci élection yu leer dem ci élection yu wóor campagne bi gàtt na mais daañ def occasion pour dem fu ne suñ ko mënee fu ñu mënul dem nag nañu xam ni seen itte ak seen soxla moo ñu tax a jóg daa daañu fexe décliner pendant les douze jours suñu programme parce que li ñu soxal mooy dañu bëgg Sénégal buy dox man Khalifa Ababacar Sall président de la République je suis prêt je suis préparé pour diriger réew mi suñ ma falee incha allah su suba sa danaa liggéeyal Sénégal et je conduirai toute la refondation et toutes les ruptures dans la sérénité l'union et le maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp wasalaam